lan moo tax seen collectif yi ak seen association yi àndoo leen. waaw parce que euh, dafa am ñoo xam ne yeneen association yoo xam ne mën nañ ne bokkuñ ci secteur bi mais dañuy mbubboo secteur bi loolu mooy loolu mooy problème bi te da ngay gis euh, ñoo xam ne dañuy tijji benn boulangerie di def euh, deux sacs wala trois sacs wala un sac et quelque juste pour ne man ci laa bokk laa su élection jubee comme nii mm-hmm. ñu def ay menaces ak état ak euh, consommateurs yi ne dañuy yokk mburu bi euh, tegal état ay conditions yoo xamante ni pour mu jàppale leen ci seeni projet su fekkente ne état defu ko ñu mën ñu menacé ko ne dañuy dem grève alors que ñooñu maanaam matuñu sax 2 pour cent ci secteur bi. léegi ñooñu mooy ñoom Babacar Gaye waaw SNBS. waaw matuñu sax ñoom ñuy diriger côté yëpp di wax naa ne ñoom ñëpp li ñuy def par jour matul une tonne maanaam ne. matu li ñu mooy ku ci nekk deux sacs trois sacs mais daal na nga ci sec na nga ci secteur bi rek mhm. tey ñun nag euh, suñu regroupement yi dañoo am ay boulanger yoo xam ne presque dañu def ay quatre cent par jour ñu def ay trois cent sacs par jour man mi waxee damay def deux mhm. donc li ñuy wax toujours mooy euh, ku yar ay xar du diriger ki yor gét maanaam ñoom nag loolu la ñuy def. la waaw avant état comprendre loon parce que ñooñu rek la daan gis ko léegi ñun nag bi ñu demandé audience ak ministre bi fi nekk Fofana euh, ba mu recevoir ñu yàlla def nit ñi fa toogoon yëpp kenn ku nekk fi sa yi nekk ci région yi ak Dakar xam na ko donc mu xam ne ñi ñooy vrai acteurs yi ñun aussi li ñu daan nangu avant nangootuñ ko maanaam ay nit génn rek toog seen bureau woo média bi wax ci turu boulanger yi alors que boulanger waxuñu loolu moom ñoom loolu lañu jàppoon ne moo am ba léegi loolu moo tax ñoo ñu ne woon 28 euh, euh, décembre bi ñu dañu defoon menace na fii ak le 15 janvier dañu dem grève je pense que déggoon ngeen euh, mhm. rumeur yooyu yëpp quoi léegi ñoom bi ñu defee loolu ñun aussi ci lañ génn ñun vrai acteurs yi xamal population bi ak état bi na leen xamal leen na leen loolu du am grève du am parce que ñi nga xam ne ñoo koy wootee maanaam mënuñu ko. seen grève bi da am impact daal. non mënuñu dem mun mënuñu ko parce que ñooñu kuy liggéey un sac deux sac bi nga grévé yàgg na ko te feeñul ci euh, feeñul ci secteur bi donc ñun ñooy vrai acteurs yi ñun li ñu wax ci lu ñu wax ci secteur bi loolu mooy am FNBS décidé yokk mburu bi yéen ngeen ne euh, ngeen nekk contre décision boobu lan lan lan moo déglu nañu ñoom seen explication par rapport ak hausse bi ñu bëgg mais yéen pourquoi ngeen jàpp ne waruñu mën a yokk mburu waaw parce que ñoom li li ñu li ñu wax ne moo tax ñu war a yokk mburu bi loolu amul maanaam euh, farine bi Mm-hmm. prix bi mu nekkoon mooy dix neuf mille deux cent dañ ko homologué boo jëlee tey muy daale même mburu yi. Mm-hmm. dafa am benn arrêté numéro 04 56 18 du 21 décembre boo xam ne mburu bi mooy petit pain lañ koy wax 60 grammes la di jar 50 francs peut-être sénégalais bari sax xamuñu ko parce que sénégalais yi baguette standard bi lañ xam. Mm-hmm. mooy jar 175. alors que am na bi 60 grammes la moom la wax petit pain am na li ñu naan camp mooy bii ñu bari naan mooy 115 grammes la. ñu koy jaayee cent franc ci ci ci boulangerie yi. Mhm. deux cent grammes bi mooy bii mooy standard bi. mooy kilo mburu waaw moom lañ daan kilo di jar cent soixante quinze. alors que am na beneen bu def deux cent trente grammes boo xam ne deux cent franc lay jar mooy bii ñu naan ko jekk. Mhm. donc bëri na ci consommateurs yi mburu yoo xam ne xamuñu ko ñoom benn bi rek lañ xam mooy. baguette euh, mooy baguette standard bi. Mhm. léegi nag euh, prix farine bi yokkul. yokkuwul noo non non dix neuf mille deux cent bi loolu lay jar léegi. Euh, gasoil bi aussi bu fuur bi yokkul euh, améliorant yi ñoo yokk te loolu secteur privé la. Mhm. maanaam privé bi ñooy indi importer seen améliorant bu ñu ñëwee bu la neexee tey ñu jaayee ko dix neuf mille bu soobee ñu jaayee ko vingt cinq mille vingt trois parce que privé la loolu état laalu ko. donc euh, euh, courant bi ñuy wax aussi mën nañ ne li koy indi ci boulanger yu bari maanaam boo yoree pétrin bu màggat day dem vingt cinq minutes da koy daw. ci courant balay pat bee mokk. pétrin mooy machine bi jàmbu pétrin mooy li jàmbu fariñ bi nga xam ne presque loolu mooy jël courant ci ci boulangerie. Mhm. parce que bu dee four bi gasoil bi lay dawee quoi. Mhm. léegi euh, boo yoree pétrin bu bees presque 7 minutes 8 minutes mu jàmb ko mhm. mu mokk léegi bu sa facture ñëwee ci 2 mois bu fekkee da nga yore euh, pétrin bu màggat mën na ñëw ak 600 wala cent mille mais boo yoree pétrin bu bees. presque ay 300000 lay lay ñëw parce que liy daw 7 minutes ak liy daw 25 euh, minutes du bokk. Hmm. léegi ci four bi aussi même chose boo yoree four bu màggat bu fekkee da ngay def 2000 litres gasoil nga xam ne presque bu dee Dakar fii 2000 litres yi da lay coûter 848000 presque euh, day dem vingt 25 minutes. Hmm. bala muy lakk mburu bi di ko génne. boo yoree four bu bees 14 minutes mu lakk ko génne ko donc problème suñ problème mooy boulanger yu bari matériel yi ñor moo leen mag mooy four yi dañu màggat. bon ñun bi ñu demee gis ministre bi loolu la ko wax ne ko loolu mooy suñu jafe-jafe ci secteur bi léegi nag euh, ñun bu ñu jël suñu problème maanaam normalement boulanger bi dafa waroon di renouveler ay matériel am comme ni ko tubaab bi defee extérieur deux ans trois ans cinq ans nga renouveler. loolu moo tax seen ngeen jël sëpp ko askan waaw léegi nag ñun duñ jël suñu problème ba sëpp sëpp ko askan bi. Mhm. parce que loolu ñun suñu problème la. léegi ñi nga xam ne yaa yaa ngi leen dégg ñu ne dañuy dem grève ak yooyu nag ñoom maanaam xamuñu réalité bi dañuy wax noonu rek quoi parce que. kenn ci ñoom du lay indil facture gasoil bu mu wàccee wala mu ñu lay indil facture farine yoo xamante ni si seen tour la nekk wala wàcce nañ quantité yi am na ci ñoo xam ne presque def nañ ay deux ans wala un an seen boulanger du fa jaar sax quoi. Mhm. bokkut ak ñun ñi nga xam ne man mi waxee ni ci boulanger fanaan presque doo ko ñëw nii. mais état ñoom lay gën a jox gët. non non non non xamul comprendre loon bu njëkk mais léegi état comprendre on est le dañ daan nappe rek ko d'accord mais kooku vide la dara nekk foofu. Mm, nappe kay. bon man li ma si si wax rek bon peut-être bon am benn pincement au cœur bu ma gisee boulanger yëpp yi nekk Sénégal bon sont divisés ñu jaar fii et bu ma bu ma xoolee bon daanaka pays yi nga xamante ne dañoo avancé yëpp soo xoolee yenn secteurs yi nga xam ne secteur privé la jafe-jafe bi moom mooy yenn secteur privé la. Euh, donc dina difficile ñëpp xàccaloo dóorandoo ñi dañuy jaar fii ñu jaar fii mais boo xoolee dëkk yi nga xam ne ñoo avancé que soit mu nekk démocratiquement wala si yeneen yeneen yeneen kii euh, yeneen secteurs yi que soit mu nekk numérique si wàllu numérique ay sociétés privées ñoom ñoo ko moom que soit mu nekk sur le plan la mode wala que wala wala mu nekk presse si yeneen dëkk yi laa wax de yooyu yëpp ay privé la mais boo gisee dañuy booloo nekk benn association amul ñuy jaar fii ñuy jaar fii donc ñooñu dinañ am bu fekkee dañuy wax ak état nañu am interlocuteur bu crédit ba pare kenn du leen mën a Euh, indexé ni ñoom dañuy bos bossent avec l'État en fait parce que bon si seen groupement yi am na ñoo xamante ne dañ leen reproché loolu que ñoom ñoom état ñoom ñoo ñoom ñoo lëkkaloo nga xamante ne dañ leen ni peut-être état bu fekkee si wàllu importation wala importation dañ leen ko faciliter et puis bu amee yenn mesures yoo xamante ne tamit du leen laal donc loolu tamit bokk na si jafe-jafe yi nga xamante ne mhm. bokk na si seen euh, si seen si seen combat mais man lu ma si déplorer rek moom mooy euh, yéen seen grève bi dafa dem ba da ngeen da ngeen da enfin grève da ngeen xuloo xuloo boo dem ba maîtriser too leen ko fat bu lu ma bëgg a moom mooy gis nañ fi fan yii la passé ngeen ni boutiquiers yi amatuñ droit jaay mburu mhm. mais loolu boutique yi bu ñu jaayee mburu léegi ñun ñoo jaay mburu dañuy bëgg askan wi léegi dox ay ay ay mètres ay kilomètres wala am na ñoo xamante ne di dem si Brioche Dorée yi nga xamante ne amuñu fa accès wala rang yi gis nañ fi koor yi par exemple Brioche Dorée yi ñuy dem di di di dem di di. arrête de faire la publicité. non bon tu peux parler sans pourtant. Euh, oh, mais je l'ai dit <laughs> c'est c'est sorti naturellement. <laughs> bon je pense qu'on va m'excuser ça <laughs> mais je veux dire que am na ay boulanger yoo xamante ne dañuy ubbi ñu fay gis ay rang yu bëree bëri xam nga. Euh, loolu yéen euh, lan lan lan lan moo leen daal ba nga xamante ne ba ba ba ngeen seen seen combat bi xam sax combat laa ko mën tuddee wala seen xuloo bi ngeen dem ba nga xamante ne maîtrise maîtrise te leen ko de telle sorte que. Euh, mu dem si ba ngeen teree ay boutiquier muy bañ a jaay muy bañ a muy a jaay mburu yi et puis est-ce que yéen yéen a ngi dox ay ay ay jéego yoo xamante ne. Euh, di ngeen di lëkkaloo pour waxtaan ensemble pour mën a waxtaan ak état pour mën a bu fekkee dafa nekk sur le plan des prix euh, wala yeneen décision ngeen ko mën ko fixer ensemble. bon ci euh, boutique yi xam nga dafa am loo xam ne ñun ñëpp ñoo koy xeexandoo mooy boutique bi bu mu laalati mburu mais lu tax. li tax mooy tey boo demee ci boutique di jënd mburu da ngay gis boutique bi day laal omo. day laal saabu c'est pour des questions d'hygiène loolu loolu loolu. mais mais loolu ci la bokk. loolu ci la bokk et euh, problème bi ñu gën a sonal ci ci ci terrain bi laa mën a wax. Mhm. ci boutique bi la jugee parce que mooy retour yi. tey boutique bi day ñëw mën naa tey boo seetee pain bi 200 grammes la ñu wax mais kii tey boo ko tegoon fii dana ëpp 200 grammes. mais boutique bi pain bi mu lay jaay du mat 200 grammes ay 150 170 grammes normal boo bëggee génnee deux cent grammes dañ ciy génnee deux cent soixante dix wala soixante douze pain maximum loolu mooy point normal bi mais tey pain bi la boutique bi jaay moom da ciy génnee trois cent et quelque da ciy génne trois cent vingt wala trois cent trente euh, kilos ba nga xam ne léegi poids bi nga xamante ni la lañ teg mënu ko am deuxièmement boutique bi boo ñëwee tey day jël pu euh, ñëw rek indi saakoom teg dina jël parce que sept wala six différents mburu léegi yow soo ñëwoon tey liggéey maanaa ne jox jox livreur bi 1000 pain euh, dina la indil retour 20 pour cent presque mooy 200 kilos parce que li ko li ko waral mooy jox na boutique bi quantité boo xamante ni boutique bi mënu ko jaay. Mm-hmm. mais boutique bi moom day topp ak client bi nga xamante ni moom bu ñëwee mburu mu tàngalee laaj. léegi boo ñëwee teg bu defee quinze vingt minutes rek bu beneen saako ñëwee rek saako boobu lay laal. mais mais lan moo tax yéen tegoo leen benn mesure boo xamante ne léegi ngeen di tere ñu jaay mburu benn mesure boo lan moo solution bi parce que non am nañ am nañ solution solution mooy tey tey mën naa ne fii bu dee dakaar la ñuy wax tey mënoo dox fii dakaar Dakar 300 mètres yoo xam ne gisoo boulangerie wala point de vente am na tey dafa am distance euh, euh, dafa am distance boo xamante ni entre boulangerie ak euh, boulangerie 300 mètres la entre kiosque boulangerie 300 mètres. mais loolu c'est respecté. si si ah actuellement c'est c'est mais loolu Dakar la yem. on parle du Sénégal bu fekkee ne mesure day am ça va concerner concerner tout le pays est-ce que les gens sont obligés de se taper des kilomètres pour dem Mbour. mais mais loolu amul fenn ci Sénégal laa mën wax tey tey Sénégal aussi boo demee ci région yi man am na boulangerie yoo xam ne dañu nekk ci région yi. Mhm. oto yoo xam ne ñooy yóbbu mburu bi ñoo koy livré. donc amul fenn fooy taxaw fii ci Sénégal tey. fan fan la nu nu autorité dañuy war kër yi wala. non non noo dañuy am dañuy am ay point de vente wala dañuy am ay kiosque sa dépend. ci mhm. région bi nga nekk. Mhm. tey am na ci région yoo xam ne soo fa nekkee maanaam euh, boulanger euh, maanaam oto bi day ñëw ci kër yi. comme tey ci comme tey ci koñ bi y' a presque dix wala quinze maisons mu wàccee ci benn kër. on avait essayé avec ces kiosques là ça mi ngi dem kees yi euh, mi ngi dem kees yi mi ngi dem. kiosque mi ngi dem mais n'empêche boutique yi ñu ngi jaay mburu ba ngi jaay mburu ba léegi. waaw yi jaay mburu boobu ñun moo ñu gën a sonal ci lañ taxaw ak waa ministère du commerce. pour ñu mën a génne mburu yi ci boutique bi. <laughs> Kajoor Kajoor day bëgg Kajoor day bëgg a génn këram rek dugg ci boutique bi laal nguróom ñëw ah donc je pense euh, yoo xam ne maanaam normalement ki nekk ci kiosque bi warul nekk warul nekk ci boutique bi ah, lu muy laal mburu warul laal lii warul laal mais mais ñoom respecté ko boutique yi ko tey boutique bi boo ñëwee boutique yëpp Sénégal la ci am boo duggee ci boutique bi da fekk mu teg benn saako foofu. donc loolu laal rek mu laal ko moom it. alors fi mu ne nii boutiquier yaa ngi seetaan ñoom Alpha Diallo ñoom Omar Diallo ñoom Mamadou Diallo parce que euh, ñoom ñëpp Diallo lañ sant wala ba donc ñu def leen un coucou.